taxawal njabootam mais ce qui est constant parce que yàlla moom du juum nit mën na utiliser ay subterfuge ba nax nit ñi waaye yàlla moom mooy alxaq dëgg la Karim Wade yàlla jël na ko def ko ci xolu nit ñi lii firnde da ko tey ji nii muy Alinaar mii nga xam ne moom mooy initiateur du mouvement libéré Karim. muy Babacar Mbaye Ngaraaf di Pakoti di Babacar mbay Muscade di Njaga Jaw ak ñoom Deneba ak ñoom Sidi Njegen bref responsable yi fi toog yëpp kenn ku ci nekk chaque jour que Dieu yaa ngi jot ay téléphone venant de partout ci àdduna bi waa Gabon ñi ngi woote waa Afrique du Sud ñi ngi woote itali ñi ngi woote foo xalaat ci àdduna bi fii ci senegal rek kilifa diine ñi ngi woote di wax lan ñi ngi wone seen cofeel ak seen ànd ak Karim Wade xalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar kilifa gu màgg googu am na lu mu junj de te kilifa day junj njëkk na yóbbul Karim ay bernde ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax moom Mbacke xaru tabaski bi nga xam ne Karim Wade moom la rey Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moo ko ko jox dama ne le régime de Macky Sall est un agonisant un régime en fin de règne loolu xam na ko kilifa diine yi du mooy nañ ko. moom moo tax mu bëgg utiliser ay méthodes malhonnêtes pour jéem a combattre Karim Wade mais nag il passera sur nos cadavres avant d' accéder à ses fins nii ngeen ko jàppee nii bu leen ko arrêté ti samedi bu ci nekk wala weekend bu ci nekk choisir leen benn localité ngeen dem fa askan bi yéen la ñuy déglu askan bi dégluwuñu kenn ku waxul Karim li ma leen wax ni ay firnde la à Dakar bi ñu dëkk wala fi nga xam ne foofu lañuy ñuy yeewoo. nit sañatu fa sol t-shirt euh, Sall waa APR sañatuñu def mitin à Dakar ku fa def meeting jeunes yi digaale ak yow fii ci Thiès li ma bëgg ñu def mooy tout sauf APR meeting bu fi APR def nañ daan def jamono yi nga xam ne Ablaye Wade daan na def meeting ñu koy saboté ku fi def meeting nañ ko saboté les gens vont me dire les gens vont les gens me di vont me dire que ay propos yu irresponsable la mais devant des voyous de l'État devant des voyous qui se sont érigés véritablement en gangsters pour combattre des adversaires politiques la réponse appropriée c'est la vendetta donc képp ku fi organiser ti meeting di wuyoo Macky Sall nañu fexe ba meeting boobu mu am Thiès donc nous déclarons l'APR non grata à Thiès tant que libéré wuñu Karim Wade je vous remercie monsieur Diawara. suñu kilifa diine yi ñaanal ñu dem kii nag li jaadu mooy jeunesse bi nañu taxaw dans la discipline ak ak mobilisation bu wér taxaw ne ko na daxal une justice équitable bàyyi suñu frère Karim Wade mu dellu au point e, incha allah en 2017 ñu ngemb ko mu nekk le candidat du parti démocratique sénégalais le candidat de la famille libérale mu nekk le président la République incha allah continuer li bàyyam commencé ndax sénégalais yi rëccu Abdoulaye Wade mënatul nekk président mais mën ngeen mottali seen yéene rectifier seen erreur en mettant Karim Wade à la tête de ce mu jëm ci merci beaucoup. nga a ànd ak ko goy bu la Babacar wooyee nga war koo mën a wuy si. mu wala ci kan kii nga xamante mooy Karim Meïssa Wade dafa am signal yoo xamante bu ko kilifa defee dafa am lum la laaj. rendement xam bu baax ni ngay doxale c'est pas par hasard Serigne Sidi Mokhtar Mbacké toog ñam fekk Karim Wade ca jokko ko du hasard de sëñ bi du waxantu moo fi Serigne Bamba mooy xalif général des mourides waxul ñaanul intervention waaye li mu def dafa rëy toggi ñam yebal ma di ka ñaani ko fekkal ma Karim fañ ko denc nga jël ñam yi ñëpp xewlu ci loolu am na lu muy symboliser tey nag ku waxal yàlla waxal yonent bi wallahi nag boo jaaree ci autoroute bii xam ne Ablaye Wade liggéey na da nga daan dem Dakar ñu bari man am na bis boo xamante ni dama sama dama xaw sama xol bi jeex na takk nit départ bi fi huit am rendez-vous ambassade dafa tardé ci ci bi keroog may ñu ko visa mais ku jaar ci autoroute bi xam ne Ablaye Wade nag ca dëgg-dëgg am na lu fi def. kon kontaan nañ bu baax Babacar yow doo mën a war a mën a war Ababacar dañ di tuddee Ababacar ak njëkk a gëm rasulillahi dëgër nu ngamam nga dëgëree noonu nga jàppee Karim Wade ànd ak moom yaag yaag yaag Njaga Jaw bu baax mii Njaga perte na place am à cause Karim Wade licencié nañ ko à cause de Karim Wade taxu nga bàyyi Babacar lu ne dégg ko ku ne seet na la ku ne convaincre na la di la bàyyiloo Karim nga bañ kon képp kuy nit képp kuy mën a seede ngir yàlla war na laa mën a seede ma bëgg ngeen tàccuwaatal ma Babacar Mbaye Mouskade bu baax a baax a baax. yee malambiso mbay ma Babacar mi malangal cey baba merci donc euh, au plus 3977. Donc je crie à haute voix, libérez Karim Ouad, libérez Karim Ouad, libérez Karim moo ko may ak âge bi mu am yàlla la yàlla lafal ci barke Seydina mu yootu doonu bëgg fii ci ville de Thiès yaakaar naa ni Babacar mbir mi du chance lay doon ndax à ton ñu bokk benn génération yaa ngi liggéey li jëmale région de Thiès kanam fii ci biir quartier bi nga dëkk muy Mbour 1 le président de l'ASC Mbour 1 seede na ko muy Pape Diop également en compagnie d'une forte délégation mon ami mon frère monsieur Deneba Sall Ahmed Mbaye sans oublier le grand pacoti tout récemment cité Ousmane Ngom bi ñu fay mujee daje Baara moo ngi fi woon kon bu ñu libéré Karim nañ ci teg libéré Baara Gaye ndax vraiment Baara il a beaucoup mérité nañ ko libéré libéré Karim Wade parce que économiquement y a que Karim Wade moom moom nga doon sentir muy doxal économie Sénégal sur le plan de l'économie damay wax ni nag benn mbébét la Thiès am te man maa koy wax ndax jeunes yi soxla nañ ko 13 ans NSS et fermé chemin de fer est en faillite ICS est en raid ñun jeunes Thiès yi amatuñu yaakaar ci région bi suñu yaay yi màgget nañu suñu papa yi sonn nañu te yaakaar nañu bu la yàlla joxe cees ci kàttanu yàlla ñu libéré ki nga xam ni mooy le futur président de la République du Sénégal son excellence Karim Wade ak yow dinañ xam ni Thiès dinañ ci naataange Thiès di nga ko suqali Thiès di ko doxal kon nag ñu tàccuwaat Babacar bu baax a baax Babacar kàddu baa ngi noonu. des habitants de Mbour 1 ak association bi nga xamante ne ñoom Serigne yi ñoo ko jiite ñu nekk fii ci jataay bi ak ñoom Moussa Dia ak association yi nga xam ne jóge nañ ba Ersan jóge Cité Lamy jóge Grand Thiès jóge fu nekk ci Thiès ñëw wuy si ma kulim juum ba ngent fu nekk ñëw nañu kër Alilo bunt dépôt waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp daal di leen sant ak waa Guy Sombel tey Babacar Mbaye tey bu demee ba sunu borom jagleel ko lii damay delloo cant gi samay wayjur ak samay dëkkandoo mais particulièrement sama soxna Awa Ndour parce que jamono yi metti na trop mën naa ne vie de famille amatuma ko mën naa ne vie de famille amatuma ko ndax mën naa ne presque chaque jour quatre heures du matin laay dugg ci dëkk bi ci biir kër gi agsi fii daanaka lekk gu bari sax munatuma ko donc tey loolu bu amee tey nit ñi nekk sama ginnaaw di ma jàppale la ak waa koñ maa leen sant baa di gërëm donc il faut ñu muñ xam ne dañoo am beneen tournure Karim képp kuy ànd ak moom jot doo toog amati téléphone sax pour nga wuyatu ko problème la. beneen bi tamit di remercier ñi nga xamante ne ñoo jóge ba Dakar muy le mouvement libéré Karim sama grand frère sama xarit Ali Naan Ndiaye nekk ci bopp ba ànd ak une forte délégation. may baalu àq mbooloo mi parce que ci suba ba léegi dañ doon def tournée ci kër sëriñ si te kër sëriñ boo fa duggee lu la fa génne génnewu la moo tax ñu ngi ma doon woo ba moo tax sax mbir ma xaw a yéex pour électricité bi affaire yu mel noonu donc loolu moo ko waraloon mais alhamdulilah xam naa ne ay góor ngeen moo tax ngeen toog fi ba heure bi di nuyu monsieur le maire Dene Ba sàll sii di Ndiégane ak ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Mbaye di remercier ñaar ñoo xamante ne mbir mi ñoo ko bokkoon ko ànd muy le frère Ndiaga Diaw ak Gilbert Samb donc di gërëm sama frère sama xarit Bachir Diawara mi fi nekkoon léegi ak sama grand frère sama xarit Pakoti bi nga xamante ne fu ma jëm dañ naa ma benn ngeen da ngeen a niroo di saluer courage di nuyu tamit la délégation jigéen bi nga xam ñoo jugee Dakar Claire jiite ko vraiment mu nekk loo xam lu am solo la di leen wax ni comme dangeen a ànd ak ñun sunu jëmm ju doy di jiyee maa leen di wax ne yoon bi du du euh, yoon bi gudd na mais gàtt na Karim képp kuy ànd ak moom fa nga jaar ci ay tolof tolof tey fi mu toll nii fi mu nekk nii àdduna bi xeex bi wéetoon nañ ci waaye tey dañuy sant yàlla fu ne ci àdduna bi nit mu ngi ñuy woy ngir jëmmi Karim wadd di ñu félicité di ñu sollicité donc tey mouvement libéré Karim dafa ñëw dox ci dëkk bi kër kilifa diine gune mu dugg fa leeral dossier Karim leeral li nga xamante ne mooy euh, Karim ak ñi muy àndal ba pare tamit sakku ay ñaan ndax amuñu dul kër kilifa diine yi kon tey ji am nañ ci ndam te suñu jógee fii war nañu demaat ñetti kër kilifa diine pour àggale mission bi donc euh, fi may waxee mooy actuellement dañoo jàkkaarloo ak benn régime boo xamante ne c'est un régime mafieux et dictatorial orchestré par des rancuniers ñoo xamante ne seen xool yi fayontoo rek moo ci nekk Karim ku ko xool ci wàllu carnet d'adresse ku ko xool ci capacité bi pour gérer les hommes et les femmes ku ko xool ci portefeuille relationnel bi ku ko xool ci charisme ak constance am nga xamante ne place de prison Karim gënuñu ñun ñii gënu fi kenn ci sénégalais mais bu ko yàlla tàccoo ñëpp lañ ca war a ànd xam ne moom la yàlla tàccoo am ci moom yaakaar ne ëllëg day yor Sénégal yorin bu rafet moo tax ñu topp ci ginnaaw di ko jàppale di ko liggéeyal kon képp koo xam ne yaa ngi ànd ak man ci yoonu Karim bi li ma lay mooy soo amul carte d'identité gaawal nga dem wuti carte d'identité ku amul carte électeur gaaw nga dem wuti ko ku amul kayitu juddu fexeel ma nga contacté ma ñu fexe noo amee kayitu juddu pour préparer échange 2017 damaa am yéene ñun ak mouvement bi jël un million d'électeurs yoo xam ñoo leen di wutal carte électeur wutal carte d'identité teg ko ci loxo Karim Wade plus le poids du PDS ak mouvement de soutien yi kon ñun dañoo am bu ñuy dox moomatuñu suñu bopp askan weenu moom te képp ku nu yëgal dana ñëw teew ci ngir jëmi Karim Wade ji lu ñu am fas nañu ko yéene bokk ak yéen bokk ak waa koñ bi mais duma dem lu dul du ma remercier sama waa koñ ak koñ yi nga xam ne jóge nañ fi ñëw fii lenn nag laa leen di wax Macky Sall bee boo ngi jàpp ni c'est l'élève le plus nulard de la classe de Abdoulaye Wade parce que damay damay rus ni sax Macky Sall élève Abdoulaye Wade la woon maanaam ki gën a yées ci parti démocrate sénégalais boo ko joxoon réew mi mu jiite ko mais man damay regretter sax passage bi mu jaar biir PDS vraiment rusloo na Ablaye wadd gàccal na Ablaye wadd mais sunu borom gëmmut nelawul Karim même bu dul daal sax ñu rusee ko turu yàlla bi nekk ci moom ba métital yi ñu koy def ñu dind ko léegi nag il faut ñu jàkkaarloo ak ñoom ci côté bu ne ci wàllu politique ci wàllu communication ak ci wàllu ay act yoo xamante dañ ko mener sur le terrain parce que ñii ku leen bàyyi ñu faagaagal Karim ñu ngi tiit sax ñu jékki-jékki benn bis jël ko génne ko bitim réew ñu ne destination inconnue te bu boobaa Sénégal dina tàkk Karim alalu Sénégal la képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak moom doo ko rëccu kon nañu ànd ak moom pour installer ko investir ko en 2017 mu nekk candidat du peuple et candidat de la jeunesse comme man jeunesse bi laa gëm te ñoom laay àndal fexe leen ñu mëne a combat bi un million d'électeurs convaincus teg ko ci loxo Karim sa Wade ñu ànd ak moom ñu gaje jël pouvoir bi donc yéen waa Dakar maa leen di félicité bu baax ci li ngeen def nii bu nu xàddi bu ñu amati nelaw bu nu amati nof noflaay nanu fonce sur le terrain ci suba ba léegi ñun ñi kenn lekku ci kenn naanu ci ngir rek bégal Karim bégal askan wi xam ne kari mën na yor réew mi ëllëg te loxoom set na koo xamante ne musuñu la dégg ci nga saaga ci rajo wala presse ñu bind ko wala nga wax ko wala nga jëf ko kon xale boobu loxoom set na nan ko jàppale Sénégal jëm kanam tey bu doon footballeur la ñëpp nañ d'accord ne c'est un sénégalais et c'est un sénégalais de bon temps te baayam liggéey na fi loo xamante ne kenn waru ko toroxal kon tey réew mi dafa am ñu ko jiite muy Macky muy Marème muy Mimi ak Moustapha muy les 4M égale malheur Macky égale malheur Mimi égale mensonge Marème égal misère Moustapha Niass moom jigul kenn kon tey réew mi nañ ci jóg kon Sénégal dafa ñàkk chance nañu waxante dëgg te yàlla tax ñii bu leen fi juleewul suñu njaboot gi dinañ dee ñaata accident mooy am par jour ñaata marché mooy lakk te loolu gaaf la ci dëkk te vraiment kon ñetti emu yooyu le pays des quatre malheurs war nañ fee fa jëlee ba mu gën a gaaw Sénégal góor jiitetu ko Sénégal jigéen moo koy jiite muy Marème kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm tiituñu ragaluñu jënd nañ mat matelas ga mat euh, matelas mergaatu lañ koy wax jënd suñu suukar ak suñu meew di xaar ñu tëj ñu parce que Macky ci la jëm ëllëg boo leen dégg ni tëj nañu bu mu leen naqari bu mu leen metti parce que dañuy mener un combat politique te Thiès mënu ko jaral te duñu bàyyi cees kenn di ko hypothéquer te fi mu toll nii ci la jëm si ci la jëm si li fi digoon